chers donateurs et donatrices et à tous ceux qui nous suivent au Sénégal et ailleurs. Walillah alhamd. Un an d'attente, de stress et de prière. Walillah alhamd. Le puits est là. C'est une histoire assez particulière car celle qui a financé le puits la famille qui est derrière avait presque désespéré euh, de voir ce puits aboutir. Mais comme Allah a dit, n'est-ce pas que le secours d'Allah est proche Et Alhamdulillah, il est proche et il est là aujourd'hui. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est une leçon de ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir toujours une bonne opinion envers Allah subhanahu Il se peut qu'on fasse un projet, que même ce projet n'aboutisse pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'aboutisse pas que Allah subhanahu n'a pas accepté. Beaucoup de choses que le Prophète a essayé de faire, ça n'a pas abouti, mais on sait que le Prophète, Allah subhanahu a accepté ses œuvres, et Allah il est miséricordieux, il est généreux et il est reconnaissant. Et la petite histoire pour ce puits, c'est qu'il dote un puits normalement dure un mois, deux mois, mais là il a duré presque un an à cause de ce que vous voyez ici, euh, c'est ça que les puisatiers devaient sortir du puits. Donc imaginez-vous bien euh, la tâche de travail que ça demande et que ça comporte. Mais alhamdoulilah, inna ma'al usri yusra. Euh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. waaw tay mom wax dëgg yàlla bisu sant yalla la maam dañuy sant yalla bu baax a baax ci li nga xam mom lañu la muy ten bi mm-hmm. ndax wax dëgg yalla ten bi euh, manam nit ñi décourager woon rawatina ki nga xam ne mooy ci defoon xaalisam mu nekk benn suñu yaay suñu génn yaay mm-hmm. maanaam daf koo def si xaalisam daf def xaalisam mm-hmm. yaakaaroon ne teen bi dina war a mën a pare ci biir koor gi mu nekkal ko sadaqatul jaare waaye mu nekkal ko jëf joo xam ne dañ koo def ci biir koor ndax xam nañ ne mm-hmm. jëf ju baax ci biir koor yàlla subhaanahu wa taala koy ful liggéey bi ni mu méttee ni ñëpp gis nañ ko ba tax def naa ne ñetti gaskat jaar nañ fi pour pour liggéey bi mën a sotti hmm. moom demoon na ba yaakaar ne sax yàlla moo nangul jëfam moo tax teen bi bu amul ndox ci koor gi hmm. demoon na ba découragé ci loolu te koo xam ne da génne xaalisam def ko fii sabilillah ngir ay nit mën cee jëriñu mu dem ba ñàkk yaakaar ci loolu xam nga loolu métti na ci xol waaye ñu nit bàyyiwuñ ñu nekk ci rek donte ne métti woon na ci par ma voix et ma modeste personne je vous transmets le joie de la population de Yari. Vous nous avez sortis d'un calvaire longtemps vécu. On était dans une calvaire très difficile pour, pour euh, brever nos, bolas. Il, fallait qu'on marche à, 2 km pour aller à Mbelakadjaou ou bien d'autres villages environnants. Mais tout cela, c'est vous qui nous l'avez arrangé par votre modeste personne. Sachez qu'à chaque fois, chaque matin, si vous posez vos pieds euh, sur terre, après avoir dit Alhamdulillah, il faut dire Amin. Sachez que tout le village prie pour vous. Alhamdulillah, on vous remercie, on remercie Dieu. di leen jaajëf di leen ñaanal yàlla fu ngeen jëm te bëgg ko yàlla moo ko xam moo ko mën yàlla bu foofu tànk bi ngeen di topp di def xewal ci réew mi yàlla ngeen yàgg ci tànk boobu te yàlla di ko kawal boo déggee ma wax kontaan bi nag gis nga teen mm, mi wax dëgg alhamdulilah rabbil alamin waa dëgg bi ñu ngi leen di ñaanal di leen sant di leen gërëm lii métti woon na trop ñun sax xam nañu sax suñu alal bi ñu alal demu ci liggéey bu mel nii mosuñ ko gis ñetti gaskat fii koo xam ne bu demee rek ngeen bu yóbbu seen seen alal te ngeen ngooñu was keneen rek gis nga lii teen bi mos da am bii boo ko jëlee ba jaxaw teen bi amul nga jëlee ko fii ba Gandiaye teen bi amul nga jëlee ko fii ba bi amul ñu ngi leen di ñaanal seen barke bi yàlla na mu yokku mm. lu ngeen ci am ci liggéey bi yàlla ci yàlla def barke yéena leen la teg seen loxo ci seen kaw te mu barke jàngeen jëf jàngeen jëf dañu kontaan ma ne gis nga yi man gis naa ci bëri mais teen ñu may seen teen yi gisaguma ko bon bëri ndox gisaguma ko kon dañoo kontaan ba juri kontaan ba picc yi kontaan surtout ñi nag xam ne ay jigéen lañ nekk ay gone yu tuuti yoo xam ne dañoo juddu ñoo fekk lii ñun dañoo tudd woon ko ndox jur bu gisoon tay ben ben yóg lañ koy yóg muy to fi nan bo tu suwa wa fu so a ni ngi sangu xal ni ngi nan juri ni ngi nan picc ni ngi nan kon non kat liñ ci wax ni ngi bay ak sunu morom ya gi am pay nak ya sunu morom fay man mi nak lima ci war bor wax sax dafa bari te duma ko mun wax ndax man mi dama fogné man man man lan gassantel bi ndax man am nanyari ñaari at yo xamné ne yenu munuma def dara. dañ may may ndox donc dañu dañuy yenn rek ñëw di ma may léegi ba ma toogoon di lekk sax damay lekk te du mun du ma mun a ma mun a suur ndax di xalaat fi may fu ma mun a dox ba am ndox lu ma naan bu ma bëggee rooti damay abu mbaam abbu abbu saret soog a rooti li leen ñaanal ndaw si ki ki ki waral yëf li maa ngi koy ñaanal waaw yal na leen yàlla jàppale jërë ngeen jëf waaw suñ coono wàññeeku na dañoo kontaan fi mu nekk nii dañoo kontaan buñ waaw luñu luñu buñ doxee tuuti ñu ñu root waaw sangu fort te lolou yëpp mënuñ ko won waaw lolou yëpp mënuñ ko won waaw ma ngi leen di ñaanal man waaw picc sax ñu ngi naan fimu nekk ni ñëpp dañoo contane dal ñëpp daal dañoo contane waaw ñun kontaanee nag ne yal na leen yàlla kontaanee noonu. ñun de mom li ñu kontaanee sax mënuñu ko wax ndax xam naa ne dañoo toroxoon a toroxa torox be nekk ni mom dagu rod dagu sangu dagu fort li borom ten bi dox ten bi ak yeen lu ngeen bëgg ci àddina yal na leen ko yàlla defal ndox mi kay amuñu ci lu ñu war a wax suñu njur yi dañuy naan suñu doom yi di naan picc yi sax dañuy naan lu nekk def fii naan ñi fi ñi ñi xamul ñi xamul ñi xamul yaari sax dañ fiy jafandikoo ñun daal jur jul amuñu seen pay yàlla nu mu am pay yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla fay ngeen dund ba dund sàppi leen ngeen daagu dem arjana moom dong lañ leen di ñaanal man de li ma ci jot a fàttaliku bi ma ñëwee fii bu robinet bi tëjeen guddi jur gi dañuy taxawaale ci biir dëkk bi mu wóor ma wóor yàlla ne ñii dañoo mar waaye amuñu lu ñu naan parce que bala ngaa am ndox il faut bët seet ñu ubbi robinet yi nga mën a am ndox naan waaye bi teen bi taxawee fii ba léegi man li ma ci gis man xam naa ko mooy sant yàlla jur gi benn jur xanaa jur bu ñëw gisul boromam ñëw taxaw ci teen bi fekk ndox mi jeex waaye manquant ndox amatu ñun tamit Allah subhanahu wa ta'ala quand il vous fait attendre pour une chose c'est qu'il va vous donner quelque chose de mieux et c'est quoi c'est ça c'est ce puits qui a une profondeur exceptionnelle il regorge d'eau on n'a jamais vu ça même parmi nos puits euh, la nappe est très profonde il paraît qu'elle va jusqu'à presque 12 mètres entre 9 et 12 mètres donc il y a de l'eau pour les habitants il y a de l'eau euh, pour les animaux il y a de l'eau pour tout le monde et ça, je pense que c'est un signe d'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire attendre une chose, mais de nous donner plus que ce qu'on attendait. Donc nous disons à cette femme et à ceux qui sont derrière, qui ont financé ce puits, qu'Allah vous récompense. Sachez, voilà, vous qui attendiez ça, vous qui priez pour ça, vous qui vous inquiétez pour ça, il est là, à quelques jours du ramadan, un signe, je pense, vous qui vouliez que ce puits profite aux gens pendant le ramadan, c'est chose faite. Les habitants sont très contents, comme vous l'avez pu l'entendre dans les témoignages et autres. Les prières débordent. Euh, on a même parfois du mal à dire les sentiments que, nous ressentons. Mais Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala sait ce, que nous, ce que nous ressentons et c'est ce qu'il y a dans nos cœurs. Et ce qu'il y a dans nos cœurs, c'est que des belles choses pour la personne qui a financé ce puits et à tous ceux et celles qui veulent faire des belles choses. Un exemple est là, les puits, les parrainages et autres. Qu'Allah vous récompense. Notre chère sœur, voilà votre cadeau, il est là, profitez-en. Cette vidéo vous appartient. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.